abonné leen ci seen seen Partout TV moom mi leen euh, jàmm mbokki internet yi wéy leen di abonné doxalin ak jëfi naafiq gañu duutu baram ñennat ci ay njiit ci Afrique gannaaw seen teewaay ci foofale ca Ukraine doon dox rek tànk yi jàmmu fàtt rek ne ñoom ak réewum Russie dañoo séq lii di guerre bokk sa nag kii di Macky sàll moom nag ci boobu lépp taxawaay wala sax ci anam ya nga xam ne rek daal nañ koy doxalee bokk na si lu ñuy ñaawloo ko naqar ku ñu wax Amir Dine El Bachir moom rekk di daal di xamle ne boobule délégation dem foofale moom sax nag daf se daal di gën a dut baaraam Macky Sall nekkat moom jamono ba muy dem daal siggil ay néew yi Tambadou ak di rendre hommage boobale jamono ay doomi réewam ñi ngi faatu ci ay manifestation mu nekk ci góota ak fitna mu dem ci réewum jàmbur di fa masawu ak di dox tànki jàmm ànd ak yeneen i njiiti réewu Afrique fekk booba ay doomi sénégalais ñi ngi faatu fii te gis ñu kenn koo xam ne rek def nga doxalin bu nga xam ne ña koy amal foofule ca Ukraine jàpp ne rek loolu rek du lenn lu dul yëfi naafiq te nag lu nga xamante ne sa réew moo ko yayoo nga wàcc ka fa dem di ko def ci réewum jàmbur xamatuñu lan lay nuru mu di nag lu nga xam ne rekk ñu bari ci askan wi ña nga koy ñaawlu ak naqarlu ndax nag jàpp nañ ne loole waroon na mën a ñàkk wala sax mu daal di koy gën a fësal ci réew mi nga xam ne rek am na porox ndollu pour nag daal di ko fay def ak nag lu ci mënti doon rek am ñu nga xam ne rek daal di jàpp ne lii du lenn lu du rek doxaliinu état maanaam diggante nit ña nga xam ne rek ñoom ñoo séq ak nguur dund wante daal mujjante ga la ci manti am daal euh, mën nañ ña ngi koy ñaawloo ko naqarlu